donc euh, ñi ngi def euh, waxtan bi ci touru Synergie républicaine di suñu parti waaye aussi ci touru grande offense euh, grande offensive républicaine di suñu coalition di wo sénégalais, yépp ñu dellu si wax seen xel ñi nga xamante ni bi yépp di ngi participer ci ay manifestation ah te li ëpp ci manifestation yooyu ñi ci ñàkk seen bakkan yépp di ay sénégalais yoo xam ni duñu doomu politicien duñu doomu euh, borom bàkke di wax donc waajur yi nañu teewaat seen seen doom ñu waxtaan ak ñoom euh, euh, parce que léegi bari na te ñi fi dee woon ci at yi yëpp weesu ci politique ñëpp fàtte nañu leen ginnaaw loolu Euh, di wax ni euh, ñi ngi félicité bu baax euh, takk der yi muy armée police gendarmerie nga xam ni taxaw nañu temm pour sécuriser dëkk bi di wax aussi chef de l'État le président Macky Sall que grande offensive républicaine ci moment yu difficile yi ñi ngi ci wetam ñu ci ginnaawam pour pour jàppale ko mu garder aussi sérénité calme bi nga xamantene bi euh mu ngi leen ko mës xamé ak mu situation métti métti parce que loolu situation bi laaj di féliciter euh, magistrat yi parce que euh, ku ne xam na ni euh, nekkoon nañ situation difficile war a atte waaye malgré loolu li ñu war a atté yëpp atte nañ ko teg nañ ko ci yoon seen akulaayu taala li ci des nag. yàlla moo xam ku am dëgg ak ku amul dëgg ginnaaw euh, loolu di wax ni seetlu nañu ni manifestation yi euh, li ci ëpp léegi ay wàllu euh, du sax wàllu manifestation mais ay sàcc ay samba boy ay ñoo xam ne kenn xamul fu ñu jógee ñoo ci profité pour def ay ñaawteef loolu moom ñëpp seetlu nañ parce que manifestation dëgg-dëgg dem ci station seen yoon nekku ci ay magasin seen yoon nekku ci toj ay boutique seen yoon euh, nekku ci donc euh, takk yi ci def parce que ñooñu dañu war a ak parce que kenn du nangu nag euh, jugee jugee ca àll ba ñëw di yàq ay pour pour am loolu moom kenn nangu ko ginnaaw loolu nag ñuy wax homme politique yi réew mi bu réew mu ñu fowe Mali tàkk na euh, Guinée gii coup d'état nga fa Mali coup d'état nga fa boo demee fii ci Sahel bi euh, donc Niger gis ngeen difficulté yi ñu am ak terrorisme Nigéria gis ngeen difficulté yi ñu am ak terrorisme donc kenn du nekk ci ci koñ kër yëpp di tàkk yëpp ngay foy almet lii nag dafa nekk loo xamante ne bi ñun ñëpp ñëw ci war jóg ku yaakaar nag ni boo taalee réew mi diñ ci mucc da ngay da ngay nax sa bopp te nag eh, am na loo xamante ni bi su continuer ku ci nekk dangay wuti ngànnaay toog sa kër doo nangu kenn ñëw eh, sàmba boy ñëw fekk la fa di la di la di la saay-saaye na parents yi aussi vraiment waxtaan ak seen njaboot bu kenn xaar ba sa njaboot loru nga naan diw ko rey wala état bi ko rey waxtaan waxtaan leen ak seen njaboot encore une daal ñu ngi woo ñëpp ci ci jàmm ñu ngi woo ñëpp ci ci dal te xam ne lii lépp ci jàmm lay mujj ci dal lay mujj euh, jàll politique bi président la république woote ah ñi dem ñi si da ngeen dem ngeen wuy ji di ngeen di euh, wax yëpp ci mbedd mi man ngeen toog foofu ngeen wax ko parce que wuy wuy ji taxawul lu ñu la lu ñu def luñ la wax nga nangu ko donc nañ dem ñu dialoguer parce que. Euh, dans tous les cas ci dialogue la mujj ndax dialogue bi moo gën xeex bi te xeex bi amul kenn amoo ci intérêt li nga xam ne nag foofu laay daaneel moom état de droit dëkk pouvoir exécutif pouvoir législatif pouvoir judiciaire surtout yoon dëkk bu amul yoon day nërmeelu mësul kenn mësul gis nag àtte nit àtte ñëpp kontaan ci àtte moom fu ñu àttee ñii dañu kontaan ñii duñu kontaan ñii dañ nangu ñii duñu nangu waaye nag il faut dëkk di am àtte loolu daal mooy di waxtaan bi ah di ñaanal ñi ci ñàkk seen bakkan yëpp yàlla na yàlla xare leen àjjana te seen njaboot yi aussi eh, ñu ñaan état bi mu mu taxawu leen ah ñi nga xamante ni bii aussi dañ cee eh, gaañu yàlla ñu yàlla fëgg seen bopp ñaan aussi état bi mu leen bi ñaan yàlla daal yàlla na yàlla delloo si jàmm. ci anam yi gën a gaaw ci barke yonent bi